ci ay rapport yoo xam ne dañ ko jot affaire ndox jàmbat affaire ñàkk jot ci suuf si jàmbat affaire euh, cop kii euh, ressources naturelles yi ñu ngi koy exploité seen wet di leen indil ay feebar yu kenn xamul du ma benn organisation te RSE sax duñ ko def jàmbat aussi le fait que état bi ba tey boobu ba tey euh, lott nañ daal Union européenne ñu jàppaleen di ñuy jóg waaye bëgg nañ OTA aussi li ñu dégg ne mu ngi koy def ak li mu naal ñu dégg parce que société coopérative yàgg na fi waaye de là à ce nga defal ko département boo xam ne bii loolu rek lay liggéey yaakaar naa bu yàggee dina joxe ay impact loolu lu ñu kontaan la moo taxoon ñu nit ñu jóg ñëw ne gis nañ sax commencé nañ ci sax liggéey waaye ñun tam eh, du coopérative yoo xam ne Priya Sane moo ko mettre en place du état bi waaye ñun ñoo jóg am suñu bëgg-bëgg ci coopérative créer suñu bopp ay coopérative waaye defe naa ñoo ñoo gën a war gën a dimbali ndax amuñu doole parce que gouvernement ñi jóg jàppale ko ci li muy def pour mu mën a am njëriñ